non non non yemoo non man pour man warloo yem ci et puis sa condamnation boobu c'est inaudible pourquoi yii gën a audible yi yële. ñun on a fait mieux. non seulement dañu condamné. Mm. waaye dañu demandé état ne ko désormais. Mm. na dugal le principe de l'enquête de moralité. Mm. balaa ñu autoriser kenn ngay ubbi daara. parce que doomu jàmbur kenn du ko dénk à n'importe qui. d'accord alors nga di ko dóor di ba rey ko. loolu alxuraan ak diine man man man doo dem constituer mais ku ñu jàpp ba noppi looy participer. kon nag da ngay bàyyi da jàpp ko léegi ba ca des boo xam ne tamit euh, bi tëj na la ak euh, yéen Jamra euh, ni mu poñee réew muy cette épineuse question là de l'homosexualité bu ñu duggee xool ci daara yi les fois bi nga dégg benn kii maître coranique. Euh, am na mu sàkkoowee euh, taalibe bi euh, loolu tamit yaa ma coupé sànq alors ba ñu toogee ak Serigne Bara waaw wax ko suñuy tànk ne ko am na sëriñu daara bu nekk Jurbel hmm. te ci sa kilifteef la bokk hmm. dafa sàkku juróom benn taalibe hmm. suñu kàddu daanoogul sax moom moo ñu coupé ne imaam Massamba na seen xel dal joxe naa ndigal pour ñu bàyyi yoon mu dem ba jeex mais mais mais euh, xam nga loolu d'accord. waaye kenn demul Touba Euh, pour dégg nga euh, ñaxtu loolu. waaw mais mais waaw waaw donc mais mais kooku c'est c'est quand même. Euh, yaa ko yaa ma ne homosexualité mais wax la mais mais boobu yàgg na quand même amata. mais là là nii lu am na homosexualité temps yi. kaay ah, ah, wax la. jox ma benn bu subaa tu m'entendras mais bii bii ma lay wax. <laughs> ñun ñoo ko d'accord léegi léegi léegi léegi man parce que fii dama temps baa dem tey. Hmm. politique bi tamit dafa dafa war a face to face émission people la léegi. waaw people je fais du people donc ndax yow people nga léegi moo tax quoi. maa ngi doon yëgal sa sa grade mais yaa ngi wàcc la. non people nga moo tax léegi. ay ca je fais du people. léegi euh, mais quand même Mamata est-ce que euh, euh, Jamra da ngeen am. ay subvention ay don ay ay yeneen fonds pour quand même combat yi ngay mener c'est quand même il faut quand même des des moyens bu dul daal sa téléphone bi ngay woote crédit téléphone bi ngay woote rek loolu ak connexion bi ngay jën ak yooyu c'est quand même de de l'argent lay kam kam lay financer waaw Jamra hmm. depuis sa création te kàddu gi bi ci man rek la jëkke rahmatullahi alayhi Abdou Latif moo yàgg di ko wax nee na àdduna du yàgg-yàgg ba ñu dem di lonku ci benn ginnaaw organisation internationale wuuteeg ñu yore seen biberon di nàmpal certaines structures la société civile ci jamais àdduna du yàgg-yàgg ba ñu dem di si booru état. pour am dépense on le fera jamais. kon léegi ñun. Hmm. bañ nañ ko ba Jamra amul compte bancaire. ah ouais? on fonctionne euh, à chaud. dama jox benn exemple. bëggoon nañ fi def une marche. pour euh, dénoncer le massacre de la minorité musulmane de Birmanie. Mm. ñu daal di ay rappeurs. Mm. ñoom ñun euh, euh, ma naka le général. Mm. fàttali naa turam sax xam nga ñoom. <laughs> jàppatuma seen tur yi. ak Thialé Flamji. ñu daal di ànd ak ñoom def partenariat. mais comme que ñoom dañu xawoon néew doole. on a tout financé. loué suñu sonorisation suñuy bandes. suñu sonorisation ou alors kon ni ñuy fonctionner mooy quand il y a un événement ponctuel. immédiatement. on actionne le le le, le volontariat. ok ñi seen poche xaw a diis. ay imam Massamba Diop qui est le patron d'un grand groupe scolaire yëkkati 500000 francs. yow nag mais yow euh, euh, nga xam ne taalibi la comme man. Hmm. mu kurkuri gauche droite. ba am benn 50000 joxe. yow nag Makhtar Gueye bi nga xam ne. Hmm. yow yaa ma dàqalu fa ma doon liggéey <laughs> yaag sa sa <laughs> léegi man itam ma daal di dem gisi Papa Diagne grand sëñ Dakar mooy a 10 000 francs ma gisi keneen. mu yóbbu <laughs> ma daal di dajale joxe alors ñu daal di financer événement bi événement bi jeex ku nekk ñibbi. d'accord léegi léegi kon ma ma <laughs> gis naa defante mais amul problème léegi mais mais kon actuellement kon chômeur nga kon. Hmm? actuellement chômeur nga. professionnel. ah bon. waaw mais bon j'étais bon. damay damay tooñ rek. xam nga mais loo liggéey quand même. Dieu sait que. parce que informaticien euh, man de métier. maa ngi defee suma formation. à l'institut supérieur d'informatique et de gestion bu Belgique am fa sama euh, jóge fa jaar IAI institut africain d'informatique bu mm. Libreville mm. te frère Abdou Diouf mas ko jiite Maguette Diouf alors après sept ans mm. bi ma ñibbisee yàlla suturaal ma la mu wuti woon amoon naa ko mu di le diplôme supérieur d'informatique de gestion programmeur analyste droit commercial ak organisation des entreprises mon premier emploi 6S euh, depuis janvier 89. Ah. waaw ma nekk fa ba ba ba 2008. Ablaye ma ma def fa ans. ma créé service informatique bi ba euh, euh, de métier. voilà léegi j'ai atteint la limite d'âge comme tout le monde j'ai droit à. une pension de retraite. voilà mais la pension quand même Mama Tagé. Euh, est-ce que am na suuf euh, yoo xam ne. ñu ngi accompagner yow sax salaire bu rëy bii la ñu sunu jox. bu la neexee fin du mois xam nga fin du mois damay préparer caravane pour banlieue bi parce que rey yi bari na. xale yi ñuy euh, jàpp kidnappé leen te bu koor yi feeñee ñu naan manqué na benn bopp ak il faut ñu dénoncer ko àndoon nañ ci ak ñoom Gade Diouf ci banlieue bi euh, ak jeunes yu bari ñoom Omar Ndiaye président ASC ak bàjjenu gox ay bopp yu disparaître te toujours rey yu ñaaw yooyu avec ay cër yu manqué nemmeeku nañ ko bu ñu dëgmale élection foog ñu leeral ko hmm. defoon nañu caravane euh, yëmbal noonu loolu c'est une mystique entre parenthèses lu nekk ngi ci biir. ok alors il faut ñu dénoncer ko. defoon nañ ko daaw euh, yëmbal nord yëmbal sud Djidda Thiaroye kaw Wakhinane Nimzatt. waaw waaye ren dañu am benn caravane de huit véhicules. Mhm. avec de fortes sonorisations. Mhm. et on ira dans tous les grands marchés. d'accord de de de la banlieue. Mhm. exhorter pères de famille yi nañu yàdd seen xale yi bàyyi leen seen doom yi ngeen di yónni. Euh, ci boutique bi boutique passé bàyyi leen xale bu am cinq six ans ngeen di ko bàyyi muy jàngi seul école wóoru. d'accord léegi mais yooyu. koy financé ñun. ku ne da ngay booy yëkkat yow voilà bu boobaa bu weer bi dee danaa fi ñëw yónnee la ket pour que yow nga participer. est-ce que mën nga bàyyi sama salaire bu tuuti beeg. ah foog nga joxe de. Euh, parce que xale yooyu ñuy rey reyu ñaaw ay doom lañ. waaw loolu loolu d'accord mais quand même sama salaire bee euh, euh, asim salaire laa yor. nga joxe de. <laughs> subvention ñu dara. man man tamit ñu baax ñu baax ñu mel ni yow rek ñooy jékki-jékki yërëm ñu rek joxe dara. waa léegi waaw waaw waaw léegi Mama Tade kon yow bëggoo ko fi yow foo jëlee dërëm bëggoo ko fi sa koppar fu mu jógee bëggoo ko. waaw mais je suis lay financé. Euh, mais ah, dama ak sa léegi nga gaare fay ci buntu lu ñu lu ñu indi lan la yaa waxaale taxi bi ay jeunes daanu nga foofu daanu nga. kon euh, na ma li ma gaare fële daanu nga waaw jëlal beneen sujet. kon yow taxi nga nga nga ama oto. damay waxaale taxi sëgg di waxaale ba sama digg ginnaaw gaa ngi métti. nga naan ma ay ku leen di financé <laughs> ñun ay taalibe lañ. mais mënu ma gëm loolu amuñu dara. taalibe lañ kon yu gën eh, eh, au passage. Ah. moo mbokkab taalibe euh, Mouhamadou Bamba Ndiaye ancien ah. ministre. Hmm. de des affaires religieuses saa wu yëgee ne Jamra engagé na combat. Hmm. mu woo ma Maktar ma ne ko déw mu ne ma Keleng. war yi ñëw. ñu jël dugal ci kees gi. mais mais mais mais mais dama bëgg yooyu itam ngay def noonu. waaw non man man kay man man kay non man man dama xaw a daan man xaw ma ne nekk tey yow yow kon ah oto Ndiaga la mais mais mais mais mais mais grand kon yow lii kon da kii pour la pour la pour la. voilà voilà yaa ngi doog a ñëw rek alors yàlla dafa dogal ñun ñëpp ay jullit lañu ak ay catholique c'est les de grandes religions révélées dans ce pays. waaw moo tax nga demee on euh, croit à un Dieu unique. ñun julli ji nag Seydina Mohamed dafa wax ne. ngay moy ci juróomi ponk lislaam yi mu di shahadaat bi waxtu wi juróom weer weeru koor joxe asaka ak aji màkk bu la ko sa poos ak sa euh, wér-gu-yaram maye hmm. nee doyul ñu ne ko ah sang bu tedd bi luy mottali taxawaay jullit mu ne nga mottali ko ak ñett yi hmm. boo gisee injustice lu bon ak luy tilimal maanaam lislaam jullit bi waajib la ci moom maanaam obligation pour nga jóg nga opposé wu ci fii yadihi la wax par l'action su jàppandiwul fii lisaanihi nga wax fu jàppandiwul fii xalbihi nga naqarlu ko sa xol di ñaan ba yàlla xam ne metti na la waaye da ci mënul dara latin na daan wax ne mm. avec un brin d'humour fi xal bi yi nañ ko bàyyeeg suñu maam yu màgget yi ba xobidaas mm. nga xam ne mënuñoo def dara mais ñun tant que on parvient à rester debout nañu def fi yaddi yi ak fi lisaan yi d' accord boobu am na solo mais mais les grands euh, bi nee na euh, li ma des si waxtu bëriwul euh, après politique moom da ngay da ngay taf taf est ce que yëre bii nga sol gis naa ñu naan Mamataar Gueye dafa dafa xëy suba rek bëgg fi nekk l'empêcher de tourner en dañu bëgg bëgg ñoo tere xappi bëgg ñu tere enjoy donc euh, euh, loolu yëpp quand même euh, lu diis la man man man li ma la bëgg sànq yaa ngi wax ne xeebuloo benn menace fu mu jógee parce que am nga quand même e, e, exemple loo xam ne ci nga ci nga nga ci nga tënku ñu nangul la ko mais man li ma li ma bëgg a xam mooy. est-ce que ndax fii tout mu personne n'est parfait ñun ñun ay être imparfait lañu grand ñun ñëpp muy yow di man on été jeune Euh, xëy na def nañu des choses dont on est fier et d'autres dont on l'est moins hmm? euh, ñëpp fote nañu lu sa ñoo fote est-ce que yow yoon bi nga taxaw mooy yoon bi nga jublu nii taxaw di dénoncer taaru société yeeg taaru ñenn ñeek xale yeeg yooyu ah est-ce que suba Euh, c'est une question euh, gars yi duñ dem li mat say yëf. ñu ngi koy ñu ngi ci. lijjanti la xool piste la xool loqati say bagage dugal bi génnal ci vaar loqatil la ay yëf yoo xam ne mamata ba nga nekkee xale xëy na nga doon def ay rasta xëy na def ay bagage euh, yooyu xëy na sax fii ñu nekk nii cosaan bi ñàkk mus mus nga fee ñëw sans patron bi rëkkatal la nga am noo demee ñu loqatil la loolu tegal loqat ne la mbàcc ci ginnaaw la nag mamata gay nag ñu ne yow yam tu suis comme nous on l'est maintenant yaa loolu yaa léegi comme que am naa sa WhatsApp dinaa la yónnee sama photo 72 73. Hmm. bi